ba nu mën koo jooxe ni mu ko santaane moom mi nga xam ne moo wax ci alxuraan ne moo gàllu ci sunu kaw ñun jullit yi bu weeru koor ñëwee nu woor ko weeru koor nag am jagleeg boppam ci biir weer yi suñu borom mi ngi wax ci alxuraan ne su ngeen bëggee xam am at yaata weer a ca nekk na ngeen xam ne ku leen ko laaj tontu la mooy fukki weer la ak yaar fukki weer ak yaar yooyee am na ca yent yoo xam ne yu yàlla baal xel la waaye taxut nag mu tudd ca wenn weer nu mu tudd waaye weeru koor la ca ne sempet tudd ko ca jox ko ay jagle yu mu joxul wenn weer kon ku ko fekke war ngaa gaaw euh, li gone yi di wax profité Euh, mooy lu lay romb yi dem rek te nga bëgg a dem nga gaaw sànni sab saak wadd ne ñoŋ ca kaw ku mu raw kat day si waat déwén waaye weneen moom eh, weneen du duutu amaat gu jàll jàll na ya jàll lu ca waay defutoon jeex na du ñëwaat ay moroomam rek mën nañoo amaat waaye moroomam yooyu ku xam fu mu koy fekk kon ku ko fekkee war nga gaaw aj ca la nga ca mën a aj te yéeg mu yóbbaale la yàlla na nu ko yàlla jàppandalal bokk na ci jagleem yooyu tudd gi mu ko tudd ne ci la wàcce alxuraan kon weeru jàng alxuraan la nu mu gën a bare ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ne moo nun ñoo niroo bind am malaaka daana wàcc mu ñuy wax jibri jibril mu mel ne dañuy nafar alxuraan am nañu ne guddi ku jot ñii ne guddi ku jot ak bëccëg bu jot dana ñëw dem la muy tekk rek mooy kon weeru koor weeru jàng alxuraan lu bare bare bare bari la te <coughs> weeru koor it bu ëllëgee moo alxuraan moomu nit dana toll ci ay xat-xat ñu xettali ko loolu waxi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bu ëllëgee ña jullit te nekk ci ay xat-xat xamaguñ li ñuy def ku ca sonne woon weeru koor nam ko war a sonne te mooy woor ko mooy woor ko koor mën na koo séen xàmmee ko ci gaayam ñëw ne yàlla kii kat tin ma ci tin lu tax saa bu weeru koor masan ñëw maa ko daa tee lekk kee koo naan tee koo def mbooleem yi nga xam ne yu dagan ci moom la kon rikk yàlla tin ma ci tin nag ku xamut lu mu doon mooy kuñ ne dañoo téye kenn fa ña ko war a téye téye ko ñu yaakaar ko ci woo ko mu dem ànd ak moom ñëw loolu mooy tinu day tinu ci ñu tin ko ca jox ko ko mu ànd ak moom dem weeru koor nag yàlla daf koy may loolee bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne yàlla tin ma ci kii maa ko woon di lekk bëccëg ak a jëfandikoo mboolem yi dagan mu jëfandikoo ko ci lu dul weeru koor waaye alxuraan day ñëw ne yàlla yàlla nag ma tiin ci kii maa ko teewoon a nelaw guddi guddi gu jot daf daan taxaw di ma jàng léeg-léeg mu jàng ba mu yàgg mu jóg julli ay rakka te kuy julli ay rakka dañ ci jàng alxuraan kon rikk yàlla yàlla nag ma ci tin yàlla tin ko ca kon weeru koor weeru alxuraan la waaye weer wu yàlla jox ay jagle yum joxul wenn weer la waaye ci weeru koor it ki nga xam ne wóor na ko mën na caa am yoolub ay weeru koor yu bari ya ko rawoon ak ya ñëw ci kanam te natu ko fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku woor ba ngoon jot nga jox ko ndogu te fekk yow mii koy jox ndogu li dangaa wooroon da nga am ci jox googu nga ko jox ndogu yool bu toll ne moom kooram nga te du yàq dara ci yool bi nga war a am ci sa ak koor yow kon nag ñu ngi koy jox lu ñu gën a bari ngay gën di bari le ay weeru koor waaye ci weeru koor it ci la yàlla barke lépp ba ci lekk ak naan daanañ lekk ci weeru baraxlu wi ak ya ko jiitu waaye nag amu ca wenn waxtu wuñ cay lekk wu yàlla tudd tudd ca barke lu dul weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa moo jàngale ne Euh, dee leen xadd am nañu ko ñàkkal solo lool nga xam ne taye la yeew rek moo leen koy teg nee na dee leen xadd ndax xadd barke da caa am waxuñu lekk suur kese waaye ndekete yoo lu barkeel nag mooy loo xam ne fu mu fekk lu bari dana ko baril fu mu fekk lu fu mu fekk lu néew mu baril ko fu mu fekk lu bari mu saxal ko fa waye du fa bayiko ko mukk ci fekk wajangi dund mom lu barkel du fa bayiko ko mukk fekk waajaa dund tasaxaru fa inna fil barak fa inna fi as-suhuri barak waye taxaway bobu ma wax leeg leg nga ne gam mu ne wat fojjet juk taxaw julli ay rakka ba sonu tudatit la ci suñu borom wax ci welo ko waxuko ci ben ko ben wer ci ndang yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ne من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كو خمنه فونك لا بو غودكو يوت مو جولي لام مان بو سوني دالو يالا دانكو تفك يالا رك تخ يالا رك تخ يالا دانكو جيغل بكار يام جاتونو ديف تا خمكو اك يام خام ييب مو ني تي ويرو كوريت عمره تا يموت اك وين وير تي وير يي عمره ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku umra ci wéru koor dafa melne anon nga ak mom bamay aji makka umratun fi ramadan ta'dilu hajji ta'dilu xajjatan maani moo ne ci wéru koor yi lañ gis ko xamne kum dëgmal nga du moyu ndax gemeñ gu xéñ la koy waral moy budul wéru koor it ku sàggan ci gémmiñam mën naa am léeg-léeg ku mu jub mu du moyu waaye yàlla nee na ci weeru koor moom loolu di xeeñ ci gémmiñu ku woor moom yàlla moo ko dàqal fuuf xetuk misk kon bokk bokk yi war nañoo xam ne koor ñëw na te bokkut ak weer yi nga xam ne moo ko jiitu woon du yamit ak weer yi nga xam ne mooy ñëw gannaawam ñu xam ne it koor moom bu ko yàlla dong moo ko moom يلا كشي نخ يونس تبي صلى الله عليه وسلم موكو جانغلا نينا جيفي دوم ادم ليكو تامبلي بن يالا داف كوكاي فولل بو ديفاي بن مو فايكو جوروم تيركو جوروم نينت موي فوك با باوي مات جوروم نياري تيمير وايي نا كور موم يالا نينا لام تاي فاي نيت كي ووتالوكو فمي يام فانه لي نينا موكو موم تي جونجو نم في تا غيناو نه كين كوتي نيك nam toll lay jëfe danga gis ku def dara ci mbedd mi nga ne ko def li ñu ne diw du betti kenn moo xam muy jëf ju rëy rëy ci baax walla muy jëf ju sew ci ab safaan yàlla na nu ci yàlla musal koor waroom xam-xam yi wax nañu ne mooy genn jaamu yàlla goo xam ne mu su koo defal kenn ku dut yàlla ñu jëkk ña daan jaamu lu mu mën a doon daanañ ko jaamoo nu nekk di rey ay gàtt di rey ay ay guddu ay gàtt ak guddu di joxe alal waaye nag woor ngir loola ma mus am yàlla rek lañ mas a wooral kon ku ci yàlla boole ngay woor te yàlla nga nga bokk ci yàlla teg koor ñu nangu koo woor te man koo woor te nangu ko loolu cant gu rëy rëy rëy gu ab jaam war a sant digganteem ak boromam la ndax nee na moom moom rek moo mën a fay koor wa ana ajisi be kon boog weeru kooro nga noonu ñi ko doon nim see fekk di ko yàkkawleku agsi na nañ gaaw ndax loo xam ne bu yëg gutoon a tàmbali toll fii mu toll fi mu ne nii ku yéex rek mu bàyyi ko fi yàlla noonu yàlla jàppandal lu wér ak ku man guñ ko mën a taxawee ci biir weeru koor nag daanañu wax ne diw anamu ñu ne daa dem buñ ne ko foo demoon mu ne da doon dàqi kooram dàqi koor mi ngi am ba léegi waaye am na it yoo xam ne day sàcc koor yoo xam ne fi mu toll nii tembe day sàcc koor nga xam ne li ñu ko waroon a taxawee ci biir koor gi yàlla bindal ko ko ci ab yool loolee day roc day rocc loolee benn benn ba ba muy jax takk mu defee ne lam dencoon ma nga fa te fekk dara nekku fa yàlla ñu ci yàlla musal ba ci jiitu mooy euh, télévision yi am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba woor dutuñ tal dara lu may seetaan télévision musal salaat série yeeg feuilleton yi bu jeex mu toppal ca ba ca des te ya cay wax lu jëm ci yàlla néew na kon fa yooyu noonu day télévision ak la muy àndal te bokkut ak lam war a àndal cib jullit mu war koo xool day sàcc koor waaye it jay ja mooy marché yi nit ki war naa nekk ba am yitte ji ko mat dem doxi ko wàññi ko waat dil si waat waaye am na ñooñ xumb xumb ba fa la ñuy dem di dàq koor gi waaye bu ñu koy dàq ca marché ba lañ ca amoon ku si néew sàcc ba da koy sàcc marché da koy sàcc yóbbaale ko ñu ñàkk da koy dàq defe ne ni ngi koy dàq fekk sàcc nañ ko ci yoxoom yóbbu ko yàlla nañu ci yàlla musal waaye bokk na ci sàcc yi sàcc koor it foog bañ a nelaw guddi gi lëm grand place bu tas mu dem ca beneen ba ba ñuy xadd mu xadd dem door a dem tëri nag di nelaw ba tekkusaan jot mu jóg ana li nga xam ne moom la nit war a def diggante bu jullee suba ba noppi ba ba jant bi fenk ana li nit ki war a def ba la ñoo jul tusubaar ak li ñuy def tusubaar ci boppam ak gannaaw tusubaar ak dikk tekkusaan ak gannaaw tekkusaan lépp raw na ko ma nga ne wàtt law ba buy jóg tuuti mooy des ci dog diggante ba muy laal ndox ak a kuuj kuujal ñu di ko lalal lañ koy lalal ñu ne dog jot na kooku xamul ci bëccëg bi dara kon fokk guddi yi ci sàcc su mag si la bokk ci biir weeru koor te bokk yi néew na ñuy fokk ñoo xam ne jullee leen tax fokk wala istixfaar ju dul jeex déedéet grand place rek fu tas ñu jàll feneen fu ñu dem ba ñooy tàmbalee bépp li rek ñu ne kon dama fay jaaroon rek jàll feneen nuyoo ñu fay leen ñu toogaat waye bokku na ci sàcc su mak si sàcc nit ñi ci seen koor yi tam mooy téléphone yi duggu ci yi ñuy dugg nga xam ne da ngay wax lu yàgg te li ngay fay du bari ku jeex nga woo keneen am na ci ne dañu mujj loo wax sax ñu ne waaw waaw waaw te fekk waaw sax jaadu waaye dañoo sonn loolu it ci sàcc yi sàcc koor la bokk rawati nag wax joo xam ne day jul nit ki bàkkaari kese jëw rambaaj nee am na ñu wax ne gars yi nee nañ ba téléphone bi yàgg lool rawati nag yëg ngeen li am biig ak li diw def biig loolu moom bokkut ci wenn koor wenn weer waaye koor moo ci raw yàlla nañu ci yàlla musal waaye bokk yi am na sàcc boo xam ne day sàcc koor muy nay nay nag tekkiwut ne ku yor lu ne gàññi te du joxe rek moo ko doon waaye nay Euh, benn borom xam-xam nee na euh, ku nay mi ngi xaru bu fi bàyyi ko ña muy bàyyee alal ja day leen di fërloo moom ci boppam day xaru moom ba dee waaye ña muy bàyyee alal ja moom dañuy lekk lekk ba fër ndax yaari loxo la ñuy lekk léeg-léeg sax ñu samp seeni tànk mos ba xam tànk lekk tànk neex na am de yàlla nañu yàlla mosul ci loolu kon koor dafa ànd ak saraxe ak joxe kenn ku nekk nam tollool léeg nit ñëw taxaw ne amut lu mu ndogoo ji wax na dëgg waaw walla déet loo man jox ko mu néew mu bare ndax mu néew bu ko ñu bare joxee lu néew lekk tey mu am solo waaye bokk na ci yi sàcc koor it tudd naa ko léegi ci foog guddi gi waaye am na ci bëccëg biir it jataay yoo xam ne yii amul benn njariñ jataay boo xam ne bu dee yenn dëkk yi ña ngay dam ye ñenn ña ña ngay yoote ñenn ña ngay mariage bu dee dëkk yi nga xam ne dañ ko fa tere ñoom dañ leen ko soppil defal leen ko li ñuy wax lido mu mel ne du dara te fekk waxtoo nga cee jàll woo xam ne bii kenn ku ci nekk fa mu toll ci am njàngam bu jëloon lam jàng ci alxuraan di ko wax ak a waxaat fas yéene weesu fa mu yemoon bu koor gi jàllee dana am jéego yu mu dox njàngam alxuraan moo xam muy góor wala muy jigéen moo xam ñuy fay xaalis wala bañ wala fayuñu xaalis am na ci ñoo xam ne ñi moom ca jàkka ja la def seen majalis yooyu waaye buñ génnee ci jàkka ci waxtu duñ jàng alquran duñ istighfar duñ azkar dafay azkar waaye la ñuy def mooy di seet numéro yi génn numéro yi génn léegi-léeg nga dégg ku ne numéro huit moo ko rey wala neuf wala dix te fekk moo rey bàppam kon koorangu noonu sàcc sangu noonu kenn ku ci nekk na ca xool boppam fan ca toll su ko defee moom fexe ba kenn bañ ko sàcc lam ca amagu si néew mu ne ko nànkatum téye ak ay yoxoom yu dëgër mooy ca fexe ba bis bu set mu def ca bis ba jàllaale ko bis ba bis bu ne mu sëf ca ba mu des gann mu yóbbaaleel ko ko ndax lii jot a jàll ak si néew lu ca jàll te lu ñu ci defutoon rek jeex na du amaat xanaa séentu ko déwén yàlla loolu yàlla may nag ñu fekke ko yàlla nu yàlla may nu fekke jeexitu weer wi te ànd ko gu wér bañ mën koo defee ni ko suñu borom santaane dellu ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñun ñoo fi bokkoon nekk daaw te fekke wuñ ko ren yàlla na leen yàlla yaram ñi nga xam ne it ak wér dee leen tee mën a woor yàlla na leen yàlla mayu wér ba li des ci koor gi ñu mën koo dab yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa kenn ku dib jullit mënu ko bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi fi yàlla indee kenn ku dib mënu ko bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko lu bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu koo bañ. yoon wu ñuy wara jaar ba man gañe seigne touba gisaguma ko setlo ko. atliku lu bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu koo bañ. yoon wu ñuy wara jaar ba man gañe seigne touba gisaguma ko setlo ko. fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetloo guma